ci kër gi nga xam ne moom mooy la maison du Coran au Sénégal waaye di jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy ahlul Quran gépp ñu ngi leen nuyu di leen uh, ziyaara ni ki doon itam di jaajëfal uh, loo multimédia nekk fële ca Sandaga te ñoom yàlla def ñuy yëngu ci jaay lépp lu jëm ci wàllu électronique ñooy ànd ak ñoom ci jotaayu alquranul karim yi ku woote ci numéro yi rek di nga leen jot yàlla def jotaay bii weesu ñu nekkoon ak yéen ci tomb bu njëkk ci juróom yi nga xamante ne waxoon nañ leen ne képp kuy jàng alquran fexeel nga teewlu yéene juróom yooyu yëpp ci jàng alquranul karim bi ngay jàng ñu waxoon leen ne moom la ñu tënkoon ci Shaimun muy tomb bu njëkk ba muy athawaab sooy jàng alquranul karim na nga yéene li nga xamante ne moom mooy tuyaaba ñu waxoon leen ne ñaareel bi nga xamante ne dañ koy toftal ginnaaw sàkku ci borom bi subhanahu wa taala am tuyaaba moom mooy lan niyatu shifa mooy ngay jàng alquranul karim nga daal di yéene alquran mu nekk shifa ci yow maanaam mu nekk loo xamante ne daf lay faj ndax alquranu karim feebar ya nga xamante ne moom lay njëkk faj ci nit ki mooy feebar ya nga xamante ne soo demee ba hôpital médecin bi xool la du ko gis appare du ko gis feebaru kañaan feebaru soxor feebaru mbon feebar yooyee appare médecin bi du ko gis waaye alquran ca yooyee lay njëkk di ko faj muy ñëw ci feebar yi nga xamante ne bët mën na ca tege kon alquranul karim noone la yàlla burbi subhanahu wa taala dafa wax ci terem bu tedd bi ne wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifa man yàlla man ma wacce ci alquran lo xamantene ab shifa la man ma def ab wér man ma shifa moy wér manam alquran yàlla burbi subhanahu wa taala mom mo ci def ab wér ab faju alquran kumu man tafaj amul alquran lum man tafaj amul kon lépp lu dal nit ki nako delo borom bi subhanahu wa taala mutallal ay loxoom ñaan yàlla buur bi subhanahu wa taala yàlla may ko shifa yàlla may ko shifa su paree mu door a xooli la nga xamante ne mooy ay asbaab ya maanaam mu door a ndax yàlla buur bi subhanahu wa taala shifa am ñaari dafa am ci lu koy awee waaye ak lu mënti nekk fexeel yàlla dëxëñal la secret alquran al karim ca te loolu yow yaa koy ñaan yàlla buur bi subhanahu wa taala yàlla waxaat ci alquran qul huwa lilladina amanu hudan wa shifaa yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen alquran gii de nekk na ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm yàlla gëm ay yonentam gëm ay malaayikam gëm bés pénc gëm li nga xam ne mooy dogalal yàlla di dogalub yàlla buur bi subhanahu wa taala alquran ñeel na leen ñaari yahudan njub parce que doomu aadama su amul njub rek xaw ma lan lay defar ci àdduna waaye wa shifa ak li nga xamante ne moom mooy ak ay mooy shifa mooy wér alquranul karim maanaam Euh, nekk na loo xamante ne chifa moom moo raw médicament parce que médicament mooy comprimé mën na faj mën na ñàkk faj waaye alquran mooy loo xamante ne daf faj ba pare qul huwa lilladina amanu hudaw wa chifa alquran nekk na chifa ñeel képp koo xamante ne gëm nga yàlla buur bi subhanahu wa taala loolu noonu pour détailler leen ko alquranul karim day faj ñaari feebar yi nga xamante ne dafay nekk ci bakkanu doomu aadama mooy lan maradu shahawaat ak maradu shubuhaat maradu shahawaat mooy feebaru bànneexi bakkan feebaru nit koo xam ne foo ko fekk bànneexi bakkanam rek lay xalaat maanaam plaisir am rek lay xalaat xalaatu leneen te feebar boobee waxoon nañ leen ne lenn moom moo koy faj mooy al iman mooy gëm yàlla buur bi subhanahu wa taala wa taqwa ak ragal yàlla te al iman ak taqwa ak taqwa mënoo koo xamee mukk lu dul ci téere bii di alquran al karim kon nit saa yoo demee ba nga yor jikkoy mala nga xam ne lu romb rek sa xel nekk ca loo xalaat rek sa xel nekk ca nga bëgg a def loola ci saa si te doo xalaat te amoo kenn koy ragal dellul ci alquran alkarim mu daal di lay faj waaye maradu shubuhaat mooy feebari lënt am na ñoo xam ne lu leer bëgguñ ci dara ba ci pas-pas pas-pas bu leer luñ fekk ci alquran loolu duñ ko jàppee lu màgg luñ fekk ci xadis bu leer duñ ko jàppee lu màgg loo xamante ne diwa ma ko jox diwa ma jox maanaam loo xam dañ koo déelante yooyu ñoom ñoo leen di neex wala ay mbir yoo xamante leer naak leerut day màtteeg du màtte bu ca dugal sa loxo loolu maanaam xul maradu shubuhaat mooy feebaru lënt te waxoon nañ ne ne feebaru lënt la nga xam ne moom garabam mooy al ilm xam-xam te xam-xam ci alquran al karim alquran ku ko fi romb nit ki romb na na leer ne yaa ngi jóg di nappi jën waaye nga rombo fi géej nga ne yaangi wori ay jeen ci ay teen kon xam-xam kep ku bëgg am xam-xam ñeekel ci alquran al karim góorgóorlu mokkal alquran gor firri alquran door a topp li nga xam ne moom mooy ulum alquran xam-xam ya ci aje ci wàllu qiraat ak la na mel kon alquran maradu shubuhat ak maradu shahawat alquran alkarim moom moo koy faj alquran su paree nag daal di ñëw ci li nga xamante ne moom mooy xelu nit ki lépp loo xam ne feebaru soxor la feebaru kañaan la feebaru waswasa jax-jaxal yooyu yëpp alquran day ñëw ci xolu nit ki dënnam daal di koy faj ba mu set ci wécc mu daal di ñëw ci xelu nit ki lépp loo xam ne feebaru sikki sàkk la lépp loo xam ne feebaru ragal la lépp loo xam ne yëpp al araq ñàkk nelaw alquran dafay ñëw daal di koy faj bay mu set wécc mu door a ñëw ci li nga xamante ne moom mooy yaramu nit ki al amrad al badaniya feebar yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci yaramu doomu aadama ak feebar bu mënti nekk eh, eh, góorgóorlu ci alquran nu karim nga ñan yàlla tawassul ci moom ci alquran yàlla buur bi subhanahu wa taala daal di la koy fajal kon alquran ginnaaw ba nga yéenee ne araf bu ci nekk nga am ci fukki tuyaaba na nga waale ne araf bu ci nekk yàlla daal di def lépp loo xam ne araf googee daf koy faj yàlla def araf googee daal di lay eh, faj kon ñaareelu tomb bi ci juróom ya ma leen waxoon moom moo di an taqra alquran bi niyati shifa ngay jàng alquran yéene waale ci yàlla buur bi subhanahu wa taala daal di lay faj ci alquran kon mbir maa ngi noonu koy jàng alquran yaa ngi ruquya sa bopp yaa ngi faj sa bopp kon bàyyeel xel nga istichaar nga daal di yëg ne santiir ne alquran ni muy tasallulee di dugg ci say cër di jaxasoog say sa deret di dugg ci say sidit di dugg fépp ci sa yaram moom mooy tax alquranul karim mu daal di fees dell ci yow moo tax yonente bi waxoon naan man taallama alqurana wa huwa fatiyu sin xalatahu llahu bi laxmihi wa damihi ku jàng alquran fekk ndaw la yàlla day jël alquran daal di koy jaxase ak li nga xam ne mooy yàppam waaye ak deretam maanaam jëmmam day mujje nekk lu jaxasoo ak alquranul karim كل لي موني كون السلف مع القران تي ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطا فمن نقصان صلى الاله على النبي واله ما لبى ملب او تهلل محرم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته